ومن سلك طريقهم واتبع سنتهم الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مبكي جلدي غيناو بينو سانتي بروم بي سبحانه وتعالى دلو جولي تي انت بي صلى الله عليه وسلم نيوغي لين نيو ني اسلام تمودي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دي جيتال تي نيو بوب نك الخليفه العام bàyyi sëriñ Xasan Seck di ko ñaanal borom bi subhanahu wa taala mu bàyyi ko fi te woyofal yeen bi ci kawam mboolem njabootu maam Ahmadou Ndak biñ ko seqal yépp yàlla yàlla barkeelal ko jotaayam bi li mu naal ci liggéeyal maam ambari nag yàlla yàlla may ko jot gi ak fekke gi ak tal ak man gi ak wér gi tabaarakallaahu di nuyu mboolem cene ba fu waay nekk rek di ñu déglu mbaa nga tew ci bir jumaay maam Ahmadou Ndak bi ñu ngi lay jox suñu loxol xol di la wax alaykum wa rahmatullah di nuyu adina bi yep it ndax jotaay bi njot na ni mo ngi ag fu ne ci adina bi di nuyu magi jumaa ji di nuyu tamit chef de village Baye Serigne Alsane ñan sek ak ñiñ ko bokkal ñep tabarakallah xamna ni dañuy daal di dugg rek ci euh, jotaay bi balaa boobu nag Pape Mor Gueye ñu ngi leen nuyu bu baax yaag ñu ko bokkal ñëpp. bu ko defee nag mbooloo mi nga xam ni ci ñoom la mbir mi liggéey bi tënku muy képp koo xam ni bëgg nga lu baax te xam ni itam maam Ahmadou Ndak rek la ñuy liggéeyal yaa ngi ci biir mbooloo moomu ñu ngi leen di jaajëfal. Euh, tabaarakallaahu Baye Sëriñ Jibril Seck di ko teg sa loxo yak ñu ngi ko bokkal ñëpp euh, tey nag suñu mawduu tey bokk na ci mooy xutbatul jumaa kon loolu defe naa dañ koy généraliser bu ñu yemee foofu rek xutbatul jumaa mboolem xut xutba ajjuma yi léegi nag ban rôle la la la am ci société bi société bi nga xam ni li fi ëpp ci lu ñuy dund lislaam la li fi ëpp ci ñu koy dunde lislaam la ñu war a jël ay marja yoo xam ni dafay delluwaat ci xutba cenaba kon xutbatul cenab xutbatul jumaa wa dawruha fi mujtami islam xutbatu cenaba namudajan defe naa loolu mooy xutba tey bi loolu mooy mawduu tey bi ñu war ci ànd nag al oustaz Alassane Ciss bu béer nga xam ni euh, njaboot la ci Baye Aada Ciss di taalibe maam Ahmadou Ndak nekkoon muqaddam ci kër gi ay taxawaayam mat ñi day nañu taxawaay yi nga xam amoon na ko ci kër gi tam am solo yàlla yàlla barkeel oustaz Alassane Ciss bu ñu lay wax ay jaar-jaaram ci wàllum sàkku xam-xam duñu ko mën a nattale ci jotaay bi ndax fee nga xam ni mooy biir te mu dëkk fa fala la tàmbali aliwam bi mu fa bàyyi ko jaar na baabu salaam fa amee bakk bi mu fa bàyyi ko defe naa jaar na université bu Dakar mm-hmm. euh, bu Pire mm-hmm. jaar na université bu Pire fa la amee licence bi mu fa bàyyi ko jaar na dem na libi defe naa ni am njàngam ak ñam fa bokkoon euh, nekk fa ak ñoom xam nañ njàmbaaram ci wàllu xam-xam ci mboolem matière yi nga xam ni doon na ca gëstu bi mu fa jógee it dem na université Cheikh Anta Diop moom itam am fa ay diplôme yoo xam ni làq na ko fa defe naa ni mënees nañoo yemee ni foofu insha allah bi ñu jox ko rek mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu ci nuyu lislaam bi ñu yàlla boole muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di yàlla subhaanahu wa taala li nuyoo bi làmboo ci jàmm ci yiw ci sutura ak barke yàlla nañu ko yàlla defal di ñaan borom bi subhaanahu wa taala yàlla nañu yërëmal suñu way daw yi way tawati yàlla yàlla defal leen saafara ñun ñi fi desandi yàlla yàlla defal ñu ak jub njub googu yàlla nañ ci sax ba keroog ñuy dajeeg moom ci suñuy dajeeg moom yàlla nañu am gërëm jël suñu nuyoo di ko teg ci loxo alxalifatul am suñu bàyyi di suñu wasila waaye itam di fi suñu maam ahmadu ndaak sekk tey waaye di nuyu itam al imaamu ratib di nuyu itam chef village soo jëlee nuyoo teg ko ci ñetti loxo yooyu rek jëfe nga alxuraan mooy waqtul buyuuta min abwaabiha kon nuyu nga waa dëkk bi yépp di nuyu itam doomi soxna yi ñu bokkal jotaay bi di leen ziyaaro di leen wàcce itam seen wàccuwaay waaye di nuyu njabootu maam Ahmadou Ndak Seck gépp moo xam ñi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk ci bitim réew moo xam njabootu leer gi wala njabootu meen gi di nuyu itam suñu mbokk ya nga xam ni tey ñoom ñu ngi toog di jàkkaarloog ñun ngir bokk ak ñun jotaay bi donte distance am na suñu diggante muy di beral sama mag ji ma àndal muy oustaz Mouhamad Siis di nuyu itam Pablay Siis Nabien waaye di nuyu oustaz Sira Mbay ñi nga xam ne la àndal di jël nuyoo waa béer bi yépp di ko ci loxo sëñ Saada nga suñu su ñu ñëwee ci suñu thème bi nga xam ni moom lañu ñu war a traité tey yaakaar naa ni thème la boo xam ni waxtaane ko dana jafe lool ci benn jotaay waaye nag arab yi dañu wax ni maa laa yudraku kulluhu laa yudraku jullu nit ki lépp lu mu sóobu te xam ni mënta jot lépp day bañ a bàyyi lépp rek yàlla yàlla defal ñu leeru dënn ba lu ñu yéenee wax lépp ñu man ko wax waaye mu may leen nopp yoo xam ne noppi njub lay doon ba lépp lu fi rot rek ngeen xam bëgg-bëgg bañ ca am waaye njub ga ca mën a juddoo te yàlla defal ñu dégg ak topp di leen ndokkee itam ci guddi yi ñu nekk muy àll allayaalil muhammadiya guddi yi dafa nekk guddi yoo xam ni képp ku jàng siira te xóot ci lool da ngay xam ni guddi yu foor la lool ci ahbaabu rasulillah lu waral lool mooy boo demee ci téere siira yi ñoom ñépp d'accord nañu ni weer wii di rabiul awwal ci la yonent yàlla muhammad gane si àdduna ëpp ci boroom xam-xam itam dem nañu ni guddik fukk ak ñaar ci la yonent yàlla muhammad gane àdduna waaye nag am na ci ay benn benn boroom xam-xam yu joxe yeneen bis yu bokkul ak yooyu am na boroom xam-xam yu wax ni guddi gu njëkk gi ci la yonent yàlla muhammad gane àdduna am ñu wax guddik ami am ñu wax guddik ñetteel am ñu wax guddik ñeenteel am ñu wax juróom juróom benn juróom ñaar juróom ñett juróom ñeent ba fukk looloo waraloon mag ñi bu wi bu rek ñu di maggal guddi yooyu lan moo tax mooy li ñu jàpp mooy donte kenn nit moo wax ni guddi gi la yonent muhammad gane si àdduna war ma ji ñu jox yonent yàlla muhammad war naa tax ñu màggal guddi moo tax guddik fukkeel ak benn gi ñu bari dañ naan dañuy noppalu mais noppalu amu ci guddi googu amul benn borom xam-xam bu jox ñu yonent yàlla muhammad gën a seen sàll waaye nag jumhurul ulama mooy ñu ëpp borom xam-xam yi la ñu wax mooy guddik fukkeel ak ñaar ca la yàlla muhammad gën a si àdduna waaye ñun bu ñu boolee fukki guddi yu njëkk yi dem ca fukki guddeeg ñaareel ga fanaanal ko dañuy leer ni màggal nañu guddi ga yonent yàlla muhammad gën a si woon àdduna kon leer ak barkeb guddi googu yàlla nañu ko yàlla defal suñu mawdu muy alxutba خطبة الجمعة ودورها في إصلاح المجتمع خطبة تنبا نموذجا مي خطبة جمعة خطبة الجمعة أقول بيم أم كدفر سوسيتي بيا يجل خطبة تنبا كم إكزامبل خطبة سوكا خولي تي لانجاج عرب دا فا بوكو تي بات ييغا خامني سين فعل سين اصل الفعل الثلاثي لا موغي جوغي تي بات بو خامني خاف لا با خ تو با xa to ba muy xataba xataba ci araab dafa nekk benn fi'l boo xam ni ay masdaram ñett lay ñëwee xataba yaxtubu mën nañoo wax xatban mën nañoo wax xitban mën nañoo wax xutban alxatbu am na ci arab alxitbatu am na ci arab alxutbatu am na ci arab mu bokk ci musallasaatul kalaam yi nga xam ni imaam Qurtub daf koo bind ñetti baat yu jigéen lool li leen wutale mooy bu njëkk bi ci kaw lañ koy maas mu nekk alxatbu ñaaral bi ci suuf lañ koy maas mu nekk alxitbatu ñetteel bi damm lañ koy maas mu nekk alxutbatu waaye ñu wuute lool lu ñuy firi bu ñu delloo ci téere bii di alquranul karim nekk wenn was woo xam ni ñetti was imam maam ahmadu ndaak sañce woon dëkk bi benn la ci mu waxoon ni àll ba àllu ba allahu akbar àllu ba jooju mu ñu digaloon muy alquranul karim buñ ca delloo dañ fay fekk ñetti baat yi mu di alxatbu alxitbu ak alxutba الخطب لن فيك أكال خطبة الخطبة نيونك فيك تحدث ينت يلا محمد صلى الله عليه وسلم دل سو القرآن دني فيك القرآن نان ما خطبك يا سامي ما خطبكم إزراء راوتن يوسف عن نفسي ما خطبكم أيها المرسلون الخطب لمي سيني سي عرب ما شأنك وما أمرك لن موي سين لن موي سيتي ما خطبك يا سامي ثلاثي la بو xam على ala فعل لا la من tax mën naa nekk mu zakkar mën naa nekk mu annas waaye alxitbatu ci arab mooy firi labat goo xam ne d'accord nañu ba sëy war caa juddoo moo tax yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ahadukum ala su kenn ci yéen labaté ba d'accord ñu war ka may soxna bu keneen ci yéen di jaari ci ginnaw di labataat ngir bëgg jël soxna soos bobu moy ñaareel bi khutba ñun nak suñu temu moy al khutbatu xutba mooy ay kàddu yu ñu bind wala ñu di ko irtijaal imaam di ko def ay nit di ko teew mu amee durus yoo xam ni day am maw'iza waaye day am bashir day am nazir xutba day nekk kàddu yoo xam ni dañ ciy def jawaami'ul kalim mooy kàddu yu tënku lay doon waaye yu bari njariñ lool xutba nag su ñu ñëwee ci deuxième point bi mooy dafa bari lool waaye ñun suñu thème mooy xutbatul jumaa boo demee ci téere bi ñuy tuddee taarixul adabul arabi nga xam ni Karl Brockmann moo ko bind nekk benn nit boo xam ne du jullit day wax ni société bi yonent yàlla Muhammad doon dund li tax saxaaba yi ko wëroon raw ñeneen ñu dul ñoom mooy dañoo amoon sansu semaine bu jot yonent yàlla muhammad da leen di doose ci xutba at mu jot mu may leen benn xutba ci iidul fitr may leen ben benn xutba ci iidul adha waaye bu aj màkka jotee mu doose waat leen ci benn xutba mu yow mu arafa xutba yooyu nag boo ko xoolee day ñëw si ñetti étape benn bi mooy xutba semaine nga xam ni lay doon ajjuma ba ajjuma bu ñu ci xadis yonent yàlla muhammad wax na ci xadis ni diggante ajjuma ak ajjuma dafa war a nekk farum bàkkaar ci bépp jullit li tax mooy doos bi nit kiy jëlee ci àjjuma ji ci xutba ak àjjuma bi doos boobu da kaa war a mën a gunge ba àjjuma ñëwaat waaye mayoon na leen xutba fetu korité daa leen defal xutba fetu tabaski xutba goo xam ne nag benn yoon mën naa am moom la ko nit di am ci dundam yépp muy yow mu arafa yonent yàlla muhammad ak ma mu aji jee nga xam ne saxaaba yi ñoom ñépp dañoo bëggoon a aji ji fu ñu toll ñu ngi laajte kañ la yonent yàlla muhammad di aji at ma yonent bi déclaré ni déwén dinaa aji ji ñu tas ko ci àdduna bi yépp ne yonent yàlla muhammad dina aji ji at mooma lu ëpp alfu miati muslim ñoo aji lu ëpp téeméeri junni jullit dem ànd ak yonent yàlla muhammad aj googu ca la yonent ba defee xutbaam googu ñuy tuddee xajja googu lañuy ñuy tuddee xajjatul wadaa xutba gu siiw waaye nag ñun xutba yooyu yépp xaj na yeneen tem lay doon waaye du suñu temu tey suñu temu tay moy khutbatul jumaa ndax waxtu yi duñu may ñu xoos ci yenen façon khutba yi khutbatul jumaa dafa am rôle bu reuy bu muy jouer ci defar individu bi tay bala ngay wax mujtama faaw nga wax ci nit ki mom dong la chaque ni société bo dem société bi ni koy former moy ay kër kër yoy ñu fay dëkk ay nit lañuy doon tay bu kër yépp jagee penc mi day lomb lool mu jagg penc mi jagee day yomb loolu dëkk bi jag su dëkk yépp jagee nag société islamique bi day yomb mu jag islam lim ñu jàngal mooy biir néeg dafa am ëttu kër am penc am am na problème yoo xam ne ca biir néeg ba lañ ko war a régler am yoo xam ne ci ëttu kër gi lañ koy régler am yoo xam ne ci penc mi lañ koy régler xutbatul jumaa nag day ñëw boole yooyu yépp di ko defar boo demee ci imam Malik asar bi mu am ci fard bi imam Malik day wax ni bokku na ci charte khutba ci mbirum mbirum imam Malik yow mi nga xamni ya ñëw bisu aljuma di julli ci bo ñewé tok da nga wara jakarlo ak imam jamono bi imam di khutba da nga ko war di xool waruloo sax dawale sa beut ak imam lan motax moy dafa am ay anwar yo xamni yàlla dafa def imam bu taxaw di khutba du jëmmi imam bi la bul xol jëmmi imam bi waye xolal al asalatu fil khutbah asaala gi mooy bépp imaam bu taxaw di xutba imaam boobu taxawaay yonent yàlla muhammad la taxawee ndax ñun ñii ñëpp bu ñu yàlla mayoon ñu fekkee keppaaru yonent yàlla muhammad su ajjuma jotee bu ñu sangoo bay julli ji ñu demee yonent yàlla muhammad la ñuy fekk sa minbar ba mu taxaw wala misaal bu gën a jege bu fekkoon cheikhuna al mujahid mu ngi dund tey maam ahmadou ndak sekk tey ñun ñëpp bu ñu sangoo solu ñëw ci jàkk ji di julli si bu ñëwee ci minbar bi jëmmi leer ji maam ahmadou lañ ciy fekk kon ku fi taxaw sokoy xol xolé xoole ko jëmmi maam Ahmadou ndak sek soko xolé xoolee jëmmi maam Ahmadou Ndack Seck kaddu yami muy joxe kaddu yoy dalay jox kaddu maam Ahmadou ndak sek gis nga kaddu yoy bu la joxe kaddu maam Ahmadou ndak sek fam fam la yegg fa la maam Ahmadou ndak sek yegg kaddu yoy fa la lay yegg man ahabba shay'an istaqraba ilay ku bëgg mbir mu jaral la defi jéego ba ag ci lool borom ibnul muhayyib dani bi hubbi rasulillahi narju jiwaarahu bo démé ci téré bi ma bind tuddee ko al asalatu alquraniyatu fi manhajiyati imam ahmadu ndaak sekk ma ni jaar-jaar imam ahmadu ndaak sekk yépp boo ko toppee point par point point bu nekk am na cëslaay ci alquranul karim wala ci sunna su yonent yàlla muhammad boo demee ca téere booba wax naa ca ni xutba gi mu jël kàddu gu nekk am na ci xutba yonent yàlla muhammad xutba gu mu rot kon dañoo seggal kàddu yonent yàlla muhammad yu bari mu dajaleen ñu ko ci genn xutba léegi nag lan mooy rôlu taalibe bi ñëw mooy mu xam ne dafa war a jàkkaarloo ak imaam di ko xool lan moo tax mooy am na leer yu jóge ci imaam war a ñëw ci moom leer yooyu nag lu tuuti da koy xañ taalibe bi xam ngeen projecteur yi ñu yi ñuy nit ku ci jàkkaarloo woon ak moom lu yàgg boo xoolatee doo gis mooy li muy joxe dafa diis ci bët ba am na loo xam ne doo ko mën a gis waaye bu ñu duggoon ci néeg ñu tëj néeg bi lamp yi leen fay làmp yëpp kenn ci ñun dootul gisati lan moo tax mooy leer ga soxla woon dafa néew ba mu ëpp te bu néewee ba mu ëpp ñu gisat kon leer gi bu uppe trop nit ki man na baña gis su newe doole tuuti man na baña gis waye nak amna na fu muy toll kiiraay yooyu day deñ lolo tax alquran ni kala iza baraxatit taraqi wa qila man raq parce que foofu bu fa nit nekké soju bi yep la yàlla di dindi su boba nit ki day gis malaaka yi motax alquran ni wa dhanna annahu lfiraq foofu nit ki dotul jakarlo doomu adamay kess waye même malaikatu rahman yi yàlla yoni day jakarlo ñoom waxtu jumaa nag dafa am leer yu jóge ci imaam di ñëw ci nit ki te nit ki bañ mën na koy bañ a gis mais yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañoo wax ni boo duggee si jàkka ji imaam di xutba mu ne yow déglul al isra xutba ak jumaa dañuy déglu même boo xamul imaam di wax da ngay déglu lan moo tax mooy dafa am luy jóge ci imaam di ñëw ci yow ci sa jëmm ji mu yëg nga ko ñàkk nga koo yëg yonent bi nii man qaala li saahibihi ansit wal imaamu yaxtubu faqad laga ومن لغى فلا جمعة له lah mu نيت ku يخول لين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر nga xamni kenu la ci kenu yi nga xamni ño ngank l'islam ak limi bax bax nga xamni nit ki bu gisee lu bax da koo war digle bu gisee lu bon da koo war tere yonent bi yonent yàlla muhammad nee bo duggé ci juma imam di khutba al amru bil ma'ruf wal nahyu anil munkar wàcc na la bu ko def kon ki wax imam di khutba yonent yàlla muhammad nee bu ko ni noppil lan moo tax parce que yow boo ko naan noppi rek yow déconnecté nga sa digganteeg imaam bokkutoo yonent yàlla Muhammad nee na boo déconnecté bokkutoo nag yow julli si nga am nga tuyaaba waaye yoolub ajjuma ba raw na moo tax yonent bi waxul ni laa salaata lahu dani man qaala li saahibihi ansit wal imaamu yaxtub faqad laga wa man laga fala jumuata la am nga am nga julli waaye amoo yoolu ajjuma moo ki ñëw yataxattafu riqaaba naas ñoo yam ki ñëw fekk nit ñi julli muy jéggi seen mbagg yi di dem ñoo yam kon connexion boobu daa am lu koy waral dafa am benn soxaaba bu tudd Hanzala bëggoon yonent yàlla Muhammad lool benn bés mu ñëw fekk yonent bi toog mu toog ak moom di waxtaan di waxtaan di waxtaan ba xol bi tooy Hanzala jóge ci keppaaru yonent yàlla Muhammad jëm këram bi muy dox ba àgg këram nee na xamul fan la jaar xamul yan mbedd la jël mu àgg waxtaan ak waa kër gi tuuti yëg nii la mu yoroon ba muy toog ak yonent bi yoratu ko mu daw ñëw bi mu ñëwee fekk yonent yàlla muhammad toog mu ne yonent bi naafaqa xanzala man xanzala jàpp naa ni ab naafiq laa ndax su ma toogeeg yow damay yëg ngëm yàlla gu wér yëg lu sori waaye su ma ñibbee sa kër ga wàcc kooku la koy branche la yëgu ko waaye ar bu résultat amee moom bu diisee xam ni moom diis na waaye fii fii jaar ba yëg si moom yëgu ko jullit àjjuma noonu la mel tey boo fi jógee génn rek dem ñibbi da ngaa war a sentir ni yow boo doon téléphone bu faible chargé waat nañ la ba nga fees yonent yàlla muhammad ni ko bi nga fi joge ni nga meloon boo continuer woon loo ci dolli man di ak malaaka yi waaye nit day yéeg di wàcc kon am na ngëm yàlla goo xam ne aar boo fa àggee étape yooyu dafa kawe lool loolooy waral léeg-léeg nit ki di wàccat Seydul Mujahid maam Ahmadou Ndak Seck am na ay jëmmi leer yoo xam ne bi mu leen di yar ay baat la leen jox ay kadd moom la leen sa ñu topp ko di ko di ko di ko takraar xam naa ci mag moo xam ne da koo gëmmuloo mu gëm mu ni ko waxal la ilaha illallah allah muhammadu rasulullah ba mu koy répété juróom-ñaar yoon rek ci la góor gi yuux kooko leer ya ko dugg xamul fa mu jaar waaye ba leer yi yëg see na ko xutbatul jumaa noonu la mel léegi ñun kenn ku nekk si ñun na jàpp ni heure bu solotee yéreem di ñëw ci àjjuma ji na jàpp ni daa ñëw ngir déglu kàdduk maam Ahmadou Ndack Seck waaye daa ñëw ngir déglu kàdduk rasulullah imaam bi lay bi lay jiite xutbatul jumaa rol bi mu am mooy dañuy wan ñun jullit ñëpp ni ñun dañoo nekk ummatan waaxida looloo waral bu ñu noddee ajjuma lu waay mënoon di jàpp bàyyi ko ku nekk jóge sa kër ñëw su ñu ñëwee ñun ñëpp ñu def ay sàppe sàppe yi ñuy def ci xutba ci bisu àjjuma bi sàppe yooyu lam ñu war a jàngal mooy ëllëg yowmul qiyaama ëllëg yowmul qiyaama ñun ñi wax ni ñoo sopp yonent yàlla muhammad ñun danoo war a bokk ay sàppe ñi bokk yonent yàlla muhammad ëllëg dañoo war a bokk ay sàppe waaye lim ñuy jàngal mooy jullit ñëpp genn kàddu lañu am kàddu gi mooy laa ilaha illallah muhammadu rasulullah damay wax ni mag ñi gën a sonn ci réew mi seen mbaaxu bopp taxul woon ñu sonn am ahmadu ndaak sekk ba muy gàddaay na ba kajoor di ànd ak maam cheikhu ahmadu juróom-ñaari at booba bu doon baax moom dong du génn këram ndax booba yàlla def na ci mbaax ci ci moom mbaax goo xam ne mën na koo leeral leeral ak njabootam waaye lan moo ko taxoon a sonn mooy ëllëg ñiy ñëw ci ginnaawam bëggul ñu am benn coono barki dem damay liir jaar-jaaru Xaalid ibnu Walid ba ma agsi bi mu jógee xare ñëw fekk kaamilu alquran bi poussière lool mu fomp ko ci loxo bi daal di jooy jooy yu métti daal ni ko shaghalani ankal jihaad wallaahi day lu sàggan moo tax ma ñàkk laa jàng ba nga poussière waaye xam ni kàdduk laa ilaha illallah muhammadu rasulullah soxla na ñu ko défendre ma dem défendre ko moo tax tijjeetuma la jàngatuma la ba nga poussière ni ñii ñoom duñu tiit seen digganteeg seen borom maam Ahmadou Ndaak dëkk ba ko maamam bàyyi loon mu gàddaay ko juróom at bàyyi fa ay xafasatul quran tas këram ëllëg bu ko yàlla laajee lu tax nga defoon lii duru sa tontu ndax dina ko wax ni ko saxalani anhal jihad kaddug laa ilaha illallah woote woon ma waroon kaa taxawu ji tax ma tas dëkk ba waaye coono ya mu daj yëpp mbokk yi ñun ñi ñi nga xam ne dañoo wax ni dañoo bëgg Seydul Mujaay kenn ku nekk ci ñun na natt boppam ëllëg bu jàkkaarloo woon ak maam Ahmadou Ndak Seck mun la coono yi ma daj yëpp guddeeg bëccëg juróom-ñaari at di xare ngir dina yomb lool ci yéen ngir ngeen yëg si fu leen neex teg seenub der di julli waa ba diine yoon yombee lan nga defal diine waa ñun ku baaxul ci ñun ëllëg boo jàkkaarloog yàlla jàkkaarloog yonent yàlla muhammad jàkkaarloog sayidul mujahid bu la nee lu la teree baax looy wax mbokk yi am na nay jamono dund diine jafe woon na lool am nay jamono dund diine jafe woon na lool waaye mag ñi dañoo jëloon seen alal jël seen deret jël seenu njaboot joxe lépp ngir défendre kàddug laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ñun nag tey xam nga lan la ñu am tatbiix kàddug laa ilaha illallah jëfe ko ñun mooy suñu rôle waye la doon défendre ba mag ñi def nañ ko mag ñaa jëloon seeni xeej seeni jaasi seeni i maq demoon ca tooli xare tey boo demee IFAN jurigé nga dugg ci archive Sénégal boo ñëwee ci xareb Samba Sadio boo demee jurigé G doo fekk Samba Sadio ñoom bataille de Bundu lañ koy tuddee xareb Bundu xam nga li andi Samba Sadio ji mooy Samba Sadio benn dëkk pël la boo xam ne fi ñu doon xaree dëkk boobu la gën a jigéen léegi comme ñun ña fa doon xare ñoom dëkk boobu tur dëkk boobu lañ jàpp rek jox ko turu xare bi parce que itam loolu am na ci islam badar gi ñu tuddee première xare ci l'islam parce que place bi ñu doon xare moo tudd badar ñoom ñu jël ko tudde ko Samba Sadio waaye bu dee archive nationale yi ñoom bundu lañ ko tudde nga imaginer xare boobu ñeenti téeméeri nit yu manqué kenn ci yenn riwaaya am ñu joxe lu ko ëpp am ñu joxe lu ko yées dem xare fa bi ñuy wàññeeku di génn xare bi ni la damay bàyyi ba ëllëg kan moo la xamal ni la ëllëg dina la fekk ngay wax am Ahmadou Ndaak Seck dafa jëf bàyyi fi waaye dafa wax itam bàyyi fi mbokk yi bu ñu liiree xutba gi ayab alquran la ñu góor gi fàttali yaa ayuha alladina amanu taqullaha xaqa tuqaatihi wala tamuutanna illa wala tamuutunna illa wa antum muslimun lu mbir mi metti metti lu mu tar tar lu jafe-jafe yi bari bari ñun kàddug laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sàmm ko mooy suñu sag sàmm kàddu googu mooy suñu sag waru kenn si ñun warut a génn àdduna te fekk ay cëram mandi wuñu ci laa ilaha illallah muhammadu rasulullah gis nga ni ñuy lekkee suñu yaram yi di man di di yokk nga xam ne da ngay gis ni teg ci ay at boo ko gisee ni diw mu ngi màgg suñu ruux yi noonu la war a màgg ruux yi nag ak lekk du ko màggal waaye xam nga lan moo koy lekk lan moo koy màggal ala bi zikrillaahi tatma innul xulub tudd yàlla ba xol yi tàng loolu ba dënn yi tàng jër loolu mooy dundal ruux yi te arwaax yi dafa war a dund arwaax yi dafa war a dund ndax yaram yii suñu dund gi ñetti étape la dunduk àdduna gi dunduk àdduna gi suñu yaram yi ñoo jiite suñu ruux yi moo tax jëmm ju nekk boo koy xool di nga gis jëmm ji nii waaye bu ñu la laajoon fan la ruuxam nekk doo ko mën a wax ay fan yu néew la nit kiy def ci kaw suuf di ay weer di ay at mu faatu bu faatoo ñu xottim ñu xottim kan ci biir suuf دنج كوف مكو حياه البرزقيه فوفو مير مي ريول بديكو روح مو فاي جيت جسد لولو موتاخ نيت كي مانا نيك تي بير حشرات الارض فك فليك يرمم بامو جيخ تا تراول موغي خيولو ولا يالا نغي كوي مبوغال باسكو روح مو فاي جيت جسد suñu démé yowmul qiyam nak yalla bolé ruh ak jasad motax yowmul qiyam buñuy dékk suñu jëm yi du melni suñu jëm yi moy gëna reuy waaye mbokk yi ni ñuy góor góorloo di sol lu rafet di góor góorgóorlu di lekk lu baax ngir màgg nañu góor góorgóorlu ngir nandal ruux yi comme noonu ci laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ndaxte kat nañu leer ni démb ak bërki démb suñuy maam ak suñuy maamaat ñoo fi nekkoon maam yooyu dañ fee nekkoon suñuy waajur doon xale yu ndaw di topp ci seen ginnaaw ay at jàll maam yooyu jóge fa waajur yi nekk fi tey suñu demee ba waajur yooyu jóge fi ñun ñu des fi ñen buñu amé xel xamni fan yu néew ci kanam dinañ fi joggé ñeneen ñëw waye mbokk yi ku dem teddi feulé bo jiitalul lu baax dana metti man damay faral di wax ni talibé canaba du yafus warul yafus talibé canaba warta yafus ndax té góor gi dañoo jox yo xamni ak yafus amu ci ki la ni àll ba ni la alu ba ni la allahu akbar leneen lee ci duggal mu di nelaw yaa ko ca dolli waaye amu ci abdulit nak day xam ni rôle bi ko indi ci àdduna rôle xidma la ak taamir xutba ak àjjuma gi ñuy waxtaane nii dafa bokk ci njariñ yim ñu mën a andil mooy que ni boo ñëwee déglu imaam point yi muy waxtaane yépp problème yi ñuy dund ci kër gi solution yi da cay nekk du nag imaam mooy ñëw point bu nekk mun la lii mooy solution yi waaye boo ko xamee da nga ko war a jëfe boo ko xamul nga dem laaj ko ko sahabatul kiram dañoo amoon ñaar mooy asaliqa ak al uruba ay arab piir lañu te dañoo dégg làkk bi trop waaye terewul dara daana xew ñu dem ba ci yonent yàlla muhammad ni ko lii lan la kon jullit bii ñëw heure bu amee problème su ko mënta régler ñi mu nekkal mënuñu ko régler daa war dem ca penc ma tey médicament médicament yi ñu war am ñun ab jullit médicament bi mu war am mooy léeg-léeg dafa war di toog ba yàgg mu dugg ci pharmacie pharmacie rasulullahi Saya arbu ñu yëgee ni suñu yaram yi suñu ruux yi suñu ruux yi yëgatul su boobaa dañoo war a dem ci pharmacie rasulullah ñu jëli ji fay comprimé léegi nag nan la ñuy def ba mën dem ci pharmacie rasulullah di fa jëli ji ay comprimé aar boo toogee ak imaam muy xutba xutba gu njëkk gi jeex mu commencé deuxième gi borom xam sax dañoo wax ni diggante ñaari xutba yooyu waxtu istijaabati du'a waxtu la woo xam ab jaam du fa loxo fa ñaan waaye léegi ngay dem àjjuma di julli jéeg a ñëw te amoo lenn loo yëg lu yokk ci yow boobaa da war a xoolaat sa bopp te xam ni da ngaa feebar nañu xam ni suñu xol yi yàlla da cee def benn lumb woo xam ni moo koy yëngal am na koo xam ni bu doon déglu ay caaxaan léeg-léeg mu jaral ko mu jóg di ca sonn ba ay rangoñam di ca tuur wallahi nañu xam ni li ñu fi yàlla indee ñun suñu ko joxul yàlla dañ koy jox keneen cosaan li mooy bu ñu tuddee yàlla tudd rasulullahi ñun dañoo war a yëg dara ci suñu yaram tey koo xam ne nag foo romb ñuy tudd yàlla di tudd yonent yàlla muhammad di kañ gaañu baax ñi doo yëg dara ci sa yaram bu ñu tuddee ña ca des nga kontaan dana leer yow dangaa feebar ku feebar dangay faju ci su boobaa nag la la war mooy nga delluwaat ci pharmacie rasulillahi takkool istighfar genn góor yàlla dafa tëdd gént benn waay mu nekk ci benn teen teen bi fees dell ak deret waa ji deret ji di ko mëdd di ko mëdd ba ëgsi si gémmiñ gi fi mu koy waxee moytul rek daal di yow ci ci nelaw yi mu xëy waa ji ñëw ci moom ni ko man dama bëgg nga ñaanal ma ndax li ma def ci ay ñaawteef daa baree baree baree bari ba jàpp naa ni li ma dese si dund mënatuma see def lu baax te moom géntoon na bi si guddi gis waa ji nekk ci teen deret di ko mëdd mu ni ko xam nga nan ngay def waa ji ni ko ah mu ni ko da ngay seet mu xaddamu cheikh pire fu mu nekk nga dem foofu nga wax leen ñu ñaanal la waa ji bàyyi ba ngoonu àjjuma mu sangu ba set sol yéreem yu rafet ñëw ci jumaa ji fekk taalibe cheikh yi toog war a def seen xadratul juma mu ñëw mu ni leen dama bëgg yéen ñi fi nekk yëpp ngeen jublu penk ñaanal ma yàlla yàlla jéggal ma ndax man jàpp naa ni li ma def ci lu bon mënatumaa des ci suuf def lu baax lu tol noonu gaa yépp ñaanal ko wëlbatiku ni ko da ngay toog ànd ak ñun mbalaan bi waa ji ànd ak ñoom xadra ba ba mu jeex waa ji li mu defoon ci ay mbonte desewul woon ci suuf lu mu mën a defaree lu baax lu ko lu ko dindiwaat waaye istixfaar yi ñu ko doon defal ca xadra ba istixfaar yi daa fóot bon boni waa ji da ko doon fóot di ko def ay tuyaaba alquran ne nañu ulaayika yubaddilu llaahu sayyi'aatihim xasanaat wallahi nit dina àgg foo xam ni ñaawteef yi mu defoon sax yàlla da koy changé mu nekk yu baax léegi nag tajalli bi mu amee istixfaar yi di fóot bàkkaar yi di ko fóot ba bàkkaar yi jeex léegi nag jëf yu baax yi sax la istixfaar yi doon continuer nag di ko fóot bi ñu si jëw xëra ji nag état bu waa ji antanu ko looloo xar dann bi mu faatu moo tax ab taalibe piir ak fu mu mënti jog li mu war a xam mooy daa war di fóot boppam di fóot boppam mooy ab taalibe pire day miin jumaa jumaa joo gis nag aar boo gisee soorool ci dëkk la muy wane mooy dëkk bële ay jaamukati yàlla nga fay yeewoo foo gis jumaa manaarul islaam sorool yi boo gisee mu amoon ci lislaam mooy boo daan tukki si dëkk pour nga xamee ni dëkk bi ay jullit dafa dëkk ak dëkk ba la ay jullit nekk ñu fa ci sorool yi nga koy xàmmee foo gisib sorool rek nga xam ni ay jullit ñoo fay yeewoo boo naree réer ca jumaa ja ngay jubali boo amul foo fanaan fa ngay dal ca wetu jumaa ja kon jumaa yooyu min sha'airillah la war nag mooy jullit ñi xam ni jumaa yi niñ koy dundalee du defar ka mu rafet rek du tabax jumaa rek tëj ko waaye kàbbaar ya julli ya noonu lañ koy màggale fi ñu jeexale mooy ñu xam ni xutba gi ni muy tàmbalee ci sant borom bi julli ci yonent yàlla muhammad digle lu baax tere lu bon noonu la ko imaam di jeexale ak ñaan mbokk ñaan yooyu amul lum mu mënta faj ci kow àdduna yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam jëmmi leer ja na addu'a u silaahul mu'min ñaan mooy ngànnaayu jullit kon heure bu tiitee na jël ngànnaayam ku bàyyi sa ngànnaay dem xare nag suñ la jamee yaa tooñ sa bopp fi ñuy daaneele suñu kàddu mooy thème bi dafa nekk thème boo xam ni ay waxtaan yu bëree bëri def ci xaj ndax étape bu nekk ak lañ cay wax xutba gii ñu gii nga xam ni moom lañ moom lañ war a traité ci guddi yi yépp dafa nekk xutba goo xam ne ay point yu bari yu sensible moo ci nekk benn point bu nekk nit mën na cee bind benn point bu nekk nit mën na cee bind téere léegi nag yow mi ñuy waxal ci ay kàddu yu néew kaddu bu nekk nekk ab téere la war mooy nga góor góorlu ngir xam kàddu yooyu lan la suñu xamee lan la ñu góor góorlu ngir jëfek parce que al ilmu wal amal su ñu ko jëfee yàlla ñu ko yàlla nangul yàlla bu yàlla def jotaay bi muy suñu mujjug jotaay luñ fi wax ci yiw yàlla ñu ko yàlla nangul lu fi dig njuumte ñu ngi koy jéggalu di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu may nopp yoo xam ne aw yiw rek lay dégg waaye itam mu may leen nopp yoo xam ne lu mu dégg ci lu baax jëf euh, cër ya dañ koy jëfee di ziyaarawaat waa xadra yëpp di leen ndokkeel ci guddi yi ñu toll di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu defal ñu tawfiq wa tamkin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Alsane Cissé Alsane Ciss yal na yàlla barkeel xam-xam bi wax dëgg yàlla li nga fi rotal loolu arab di tudde muxtasar mooy lu tënku te maanaay yaatu lool am na solo yal na yàlla barkeel xol yëpp sedd nañ te xol yëpp it féex nañu alxaaji Pam Mor Gueye démb dafa wax lu am solo fi mu ne ki nga ñëw toog di waxtaan ak moom ñu ni la dafa am ay exemplaires yoo xam ni dañu bëgg nga jukki ñu ko ci liñ la jox nga jukki ko ca te lépp nga teg ko ci xam-xam ña ngay waxtaanal seen xol day sedd yàlla yàlla barkeel alsan ñu ngi kontaan bu baax ci yitte ji nga def dangay ndaw te bëggoo kenn gëmoo kenn yaakaaroo kenn ku dul maam Ahmadu Ndak ñu xam ko yëg ko dégg ko ci say wax ba nga jël téere bind ko jagleel ko maam Mouhamadou Ndaak téere boobu na yaatu yal na yàlla barkeel yal na yàlla euh, yokk xam-xam bi yal na yàlla saxal la ci kippaaru maam Mouhamadou Ndaak ndax chance la nekk fi chance la yal na yàlla barkeel lépp kon ñu ngi lu baax inna hadihi tadkira fa man shaa taxada ila rabbi sabila wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu nu bokk nangu ñaam wante balaa boobu nu dolli tuuti rek du yàgg insha allah nu bokkaat sant yàlla bu baax euh, julliwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa euh, gërëm nañu suñu suñu rakk wala suñu doom wala suñu jarbaat alsaan siis bu béer ci waxtaan wi mu ñu tënkal fa tabaarakallaahu gërëm xale yi nga xam ni ñoo taxawu mbir mi di ñaanal sunu waajur sunu sëriñ sunu yaakaar Baye sëriñ Assane Seck xalif généralu Thiénaba maam Amary ak Seck su ko defee yéen xale yi liñ leen di gën a dolliwaat mooy ginnaaw bu ngeen xamee ne ay taalibe Thiénaba ngeen ngeen dem jàngi xam-xam ba àggal seen xam-xam xam-xam boobu li mu war a def mooy ñëw soutenir seen maam Seydul Mujaahid maam Ahmadou Ndak comme ni ngeen koy defee dafa bokk man dama bokkul xalaat ak ki nga xam ni dafay am xam-xam bi ba pare ndekete xam-xam bi ñi ko doon saytu ñëpp pour mu am ko bi mu ñëwee dafa nekk adversaire wuñ kooku yéen seen xam-xam yéen a ngi ñëwaat di jàppale maam Ahmadou Ndak Seck ci dëgëral li mu sampoon ci dëgëral li mu li mu taxawaloon te li mu taxawaloon moom mooy dëgg xam nga damay faral di wax ni ñi jamonoonte woon ak sang bi sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam xoolal waxal laa ilaha illallah dem àjjana xoolal loolu ni mu yombe mais sooy seet ñi nga xam ne dañoo bañoon ba ñu jaral leen ñu rey leen est-ce que du ñoom tey dañ ñoo gën a dégg ñun ñii nga xam ne nangu nañoo wax laa ilaha illallah mbaa du ñee bañoon dañ ñoo gën a dégg lan mooy maanaawu laa ilaha illallah parce que ñoom dañ ñu ne woon déedéet soo nee laa ilaha illallah suñu bagage yi ci kër gi te islaam bëgg ko dañ koy sànni ji te parewuñu pour sànni ko li ci suñu xol ñu gëm ko muy ay bànneex yoo xam ne daganul dañ koy sànni ji te ñun parewuñu pour sànni ko kon nag ñu tàqali ko ak yooyu suñu ilaah yii dañ koy sànni te ñun pareeguñu ci loolu kon nag ñun dañoo préféré lànk bañ koo wax nañ ñu rey ñun nag dañu ne nañ ko wax ba pare mais suñ bagage yooyu yëpp benn bagage du fi jóge dañ koy téye est-ce que kon dégg nañu lan mooy laa ilaha illallah wax nga léegi nga ni maam Omari Ndaak dañuy waa ji gëmmal xam nga gëmmal rek déjà gëmmal gëmmal ab xutba la du du du du du xefal say bët de mais gëmmal mooy bul gisati dara ci àdduna loolu mooy ishaarab gëmmal bi gëmmal bul gisati dara ci àdduna nga gëmma gisatuma dara ci àdduna mu wax loola laa ilaaha illallaah juróom-ñaar yoon nga wax ko daal di naan ñun ñaatu yoon lañ koy wax sama classe gi dañ ko wax ay junni par jour mais est-ce que fi ñu taxawoon jóge nañu fi euh, je pense que li ñu war a gën a def mooy di vérifier waat suñu bopp jataay yii nag dafa am solo dama bëgg may ñaanaat képp koo xam ne sa jot may na la ko ngay ñëw di fekk ibnu mahib bi tey toog di fekkee waxtaan yi parce que dafa am solo yéen a ngi liggéey liggéey boo xam ni liggéey la bu am solo te ñun canaba dañ naan rek jaru ko fekk jar na ko ndax waxtaan yii nii dafa am lu mu mën a jëmbat wax nga ko léegi ci xutba bi sang bi muhammad su masaan julli fajar ba pare julli suba ba pare day jàkkaarloo ak xeet wi julli di waxtaan ak ñoom iid eh, eh, aj màkk ak lépp da ko daan def mais ñun itam yii nii dafa am solo xale yi ab tàggatu la ci ñoom boo xam ne mën naa def ci ñoom dara kon nañu gën a fonkaat lii fukki fan yi ku am jot jot sax amul waaye ñu jëm ko xaj-xajal ci suñu temps ñëw di ko fekkee lu am solo la lu ama am solo la yàlla na yàlla dolli nu sutura bàyyi ji bi jërë ngeen jëf ngeen taxaw rafet la yàlla gën a dolli sutura si barke yonent bi sallallahu wa sallam nuy gën a soññi war rek mbooloo mi góor ñi jigéen ñi jigéen ñi ñu ñëw lal seen basan ci biti déglu lu am solo la bu ko deful itam temps bi dañ koy ci ay yeneen waxtaan yu amul solo noo ngi foofu kàddu yi no kenn ku nekk jàng benn fatiha ñetti ixlaas salaatul fatiha nu yéene ko sunu way dawe jiital ci sunu maam maam Ahmadou Ndak Seck ak ñi tëdd ci euh, xabru yi yëpp ak mboolem jullit yàlla defal leen njëgal te defal na ko barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu nu paree ñu jàng ayatul kursi yu jàng fàllaxe ak na salaatul fatiha nu def ko addi yonent bi sallallahu alayhi wa aajo yëpp yàlla na sunu borom bi fajal nu ko sunu sëriñ sëriñ Assane Seck yàlla na yàlla yàggal ko yàlla wéral ko njabootu maam Ahmadi Ndak yàlla sàmm leen ci barke bi sallallahu alayhi wa sàmm njaboot gi def xéewal gàmm gi nu àgg ci jàmm yàlla yombal yépp ñiy ñëw yàlla indi leen ci jàmm delloowaat leen ci jàmm ci barke nabi sallallahu alayhi wa sallam presse bi jërë ngeen jëf bismillah امين يا رب العالمين امين امين امين امين امين امين امين امين امين يا رب خلع